et Sénégal. RFM matin 7h41 sunu gan Moussa Sow salaamaaleykum. maaleykum salaam euh, Babacar maa lay euh, nuyu di nuyu ñi deglu di nuyu également Ndiogu. jërëjëf Moussa Sow ya jiite COJER di bankhasu APR bi ëmb goney parti bobu di parti Macky Sall. Euh, laata ñuy wax ci mbirum jàpp gi ñu jàpp ñoom Guy Marius Sagna ak ñoom seen dañuy njëkkee kàddu yi Macky Sall yëkkati démb ci RFI ak France 24 ba ko ba ñu ko laajee eh, dax da bëgg troisième mandat am déet au lieu mu ni bëgguma wala bëgg naa daal ay jiixi jaaxa waxi jiixi jaaxa daal la wax démb moom daal seen waa ji ay mbiram dara leerul. Eh, waaw jërëjëf jërëjëf d'abord ci dalal bi nga ma dalal fii ci seen kër gi d'abord le président de la république ñëpp xam nañ ne moom nekkul ci ci caaxaan ñëpp xam nañ ne ci liggéey la nekk moo tax buñ ko laajee lu mel noonu ki nga xam ne biñ ko falee yàggul dara donc euh, mu laaj sénégalais yi seeni seeni seeni voix sénégalais yi ànd ak moom fal ko euh, mu ne leen aussi bu ngeen ma falee lii laa leen di defal jàpp naa ne buñ ko falee bu nekkee ci mbir yooyu di euh, di di defal sénégalais yi liñ ko laaj ñeneen waruñu polluer atmosphère Euh, dëkk bi ñeneen waru waruñu fi nekk quand li mu def démb kay ci li mu def démb kay mooy polluer atmosphère laaj nañ la ba xam da ngaa bëggam bëggoo muy layam layam yi loolu kay euh, weesuwul xajamal yëf yi. Euh, Babacar maa ngi doon wax sànq ma ne la bu ñu falee un président de la république ñu ne ko yow lañu fal président de la république li tax ñu fal la. Euh, bu ci nekkee di liggéeyal sénégalais yi je pense que ne ñeneen ñi waruñu fi nekk di wax waxi troisième mandat parce que président de la république ci liggéey boobu la nekk liggéey bi nga xamante ne tey jii sénégalais yi moom lañ ko fale moom lañ ko euh, joxe réew mi pour mu répondre justement à leurs aspirations. mais est-ce que mënu woon wax lu leer ne euh, comme ni ko constitution bi tëralee dinaa sàmmante constitution bi bi mooy sama dernier mandat waaye waxul loolu. Njoogu jërëjëf. jàpp naa ne un président de la république dañ ko fal pour mu liggéeyal sénégalais yi encore une fois euh, bu nekkee ci liggéey boobu noonu je pense que leneen xaju fi lu dul liggéey boobu noonu tontu ba léegi de tontu si laaj ba léegi de. Moussa tamit yaa ngi def ni moom de leeraloo dara. président de la république li mu wax duma ci yokk dara duma ci wàññi it dara parce que li mu wax loolu laa wax. lu mu wax. nee na. président euh, sénégalais yi dañ ko fal. léegi xaar ñu laaj la ko directement day def troisième mandat am deful troisième mandat. dañ ko fal yéen ñi ngeen bokk ci nga xam ne yéen ay sénégalais ngeen je pense que vous faites partie de ceux-là qui ont réélu le président de la république. da ngeen ko da ngeen ko président ñun li ñu bëgg mooy nga liggéeyal sénégalais yi. Euh, perspective yi nga yi yi nga proposé sénégalais yi nga ne ci liggéeyal sénégalais yi donc bu ci nekkee jàpp naa ne leneen xaju fi donc nañ ko bàyyi mu liggéey. du gën a yokk xar mi karaw maanaam gën a jur coow li muy bañ coowul ñetteelu mandat est-ce que li mu wax nii du gën a yokk xar mi karaw coow li gën a encore. gën a jolli man gisuma fi xar fii jàpp naa ne eh, deful dara li nga xamante ne day polluer atmosphère wala leneen ak leneen jàpp naa ne ci liggéey bi la nekk. donc nañ ko bàyyi mu liggéey est ce que xam ngeen ni euh, xelu nit ñi gën naa tey démb bu mu yëkkatee kàddoom yooyu ci ne daa bëgg a yóotu ñetteelu mandat xam ngeen koom dama ne le président de la république monsieur Macky Sall ñëpp xam nañ ko ci ci dëggu ñëpp xam nañ ko également ci ci fulla ak fayda donc buñ ko falee pour mu war a liggéeyal sénégalais yi proposer leen li nga xamante ne moo tax ñu fal ko je pense que dañ ko war a bàyyi mu liggéey liggéey bi ñu bañ a dugal leneen ci biir euh, xelu nit ñi wala. ana lum liggéey euh, teer bu yeggut ay sànce yu taxaw. li mu liggéey kay ñëpp xam nañ ko moo ngi fi tege ñëpp xam nañ ko parce que président de la république xam ngeen biñ ko faleeg léegi waxul lu dul équité territoriale waxul lu dul équité sociale mais jàpp naa ne képp koo xam ne il est sérieux euh, gis na liggéey président de la république monsieur Macky Sall li ci des nag bon c'est des commentaires des des d'opposants lol nag mënuñ ko bañ effectivement ñom seen liggéey lañ nek nañ nañ leen bàyyi ñu def seen liggéey. lu leer lu concret ci walum liggéey bi par exemple lan bo doon wax lan ak lan ngay lim. limay lim justement moy limu def ci ci monde rural bi xam nga biñ ko falé def ne la jeunesse le monde rural et les femmes limu def ci monde rural bi ñun ñi ci all bi lañ dëkk. lim fa def jàpp naa ne président yi fi jaar yëpp de 1960 à 2012 kenn defu ko ci. Mm. kenn defu ko ci. mais mais la campagne njaam gerte bi tàmbali nit ñi euh, duddu euh, point de collecte yi dem ci luuma yi parce que fa la ñuy ëppee xaalis ay 300 250 euh, xeeb 210 yi ñuy nguur gi di joxe nga ñëw nga ne lim fa def kenn defu ko. xam nga bu fekkente ne loolu ngay wax foofu nu sommes encore beaucoup plus à l'aise parce que li ñu doon gis mooy ay bons impayés. liñ doon gis mooy ay njublang liñ doon gis mooy ay ay baykat yoo xamante ne. li gën a garaaw mooy bon yi ci boppam impayé ou payé baykat yee ko du mooy jaayal seen bopp seen gerte ku ñëw jaay jox leen njëg lu baax ñu jënd ko waxi bon moom sax moom duy wax fi mu toll. donc li ma doon wax sànq mooy nekk li liñ doon gis mooy ay baykat yi nga xamante ne dañoo désespéré parce que tout simplement amatuñu woon confiance ci état président de la république bi mu ñëwee. effectivement dafa joxat baykat yi joxat sénégalais yi joxat population bi ben espoir bo xamantene euh, euh moo ngi koy moo ngi moo ngi pour que véritablement mu mu mu mu mu à leurs aspirations parce que bon MP yi ñu doon wax ñun Sénégal lañ dëkk avant 2012 ba 2012 liñ doon dégg mooy ay grève fii chaque jour nga dégg baykat yi génn nañ ñi conférence de presse nañ ñii ñoo ngi Kaolack ñii ñoo ngi Jolof ñee ñoo ngi Siin ainsi de suite mais léegi gisatoo ko fii donc sant yàlla bu wér a wér ci wàllu woowu. Hmm. yaa ngi tudd yi grève njàng mi njàng mi euh, ñi ngi koy séentu ay xajam-xajam bu fekkee gouvernement bi jubawul ak syndicat yi nga xam ni yëglu nañ bu yàgg njàng mi ci nguurug Macky sàll moom cooxe gi bëri na ci. question la wala contribution la Babacar. tontul rek. <laughs> xam nga sànq maa ngi leen doon wax ne président de la république wàll woo jël def na fa ay jéego yoo xamante ne si kenn du ko reprocher absolument rien du tout njàng mi ngay wax ak njàngale mi au niveau de l'université bi mu ñëwee réforme yi mu def jàpp naa ne bu amul woon courage bi amul woon vision bi amul ambition pour notre pays jàpp naa du def réforme yi aujourd'hui à demee université vous semble être dans une université bo xamante c'est des universités européennes ñun ñi nga xam ay xalé lañ fofu lañ doon rêvé jànge mais tay bo duggee université Cheikh Anta Diop Ndiogu hmm? bàyyi la ak mi nga xam ne spécialiste éducation et puis ay abri déjà euh, étudiant yi orienté orientation sax problème la fu ñu jànge sax problème la ndax day gis sax léegi ay tante ci biir université étudiant difa di jànge nga taxaw naan université boobu lañ doon rêvé loolu mooy waxu lan donc réforme yooyu noonu dafa dafa bokk ci réforme yoo xamante ne si dafa changer de paradigme dans le système éducatif. Il faut changer de paradigme dans l'enseignement supérieur au Sénégal. Parce que dans un Japon, instant le président de la République di que l'enseignement enseignement yi li que le marché de l'emploi Il mu faire des réformes orienter les enseignements vers les STEM c'est-à-dire les sciences et les technologies bi mu ko fait, effectivement ñu orienter étudiants yu gëna bari ci côté bobu non pour que buñu ñu ñu mëna directement aller sur le marché de l'emploi pour am liggéey parce que monde bi nak mo démé non légui tontu ci laaj ba légui de infrastructure yi doyul ci université yi nga taxaw nga né université yu melni ni lañ doon rêvé. donc buñu joggé ci effectivement ci ci ci enseignement yi mën nañ dugg ci infrastructure yi nga wax li fi président de la république def yéen sen walu bop gis ngeen ko nit ñi gis nañ ko demal université Cheikh Antou Diop ñaata lii la fa yokk man j'étais là-bas tout récemment gé yàggumaa génn université. ñaata chapiteaux tamit lañ fa def ay chapitre. mais dans ce dans ce pays li président de la république def ci infrastructure de 1960 wax 2012, il ko sank jusqu'à 2012 jappuma ben président de la république def nako fi ci Sénégal sur tous les plans nag enseignement supérieur mais vous voyez demain, les pavillons là qui menaçaient les étudiants de ruine aujourd'hui d'ailleurs toj yëpp défarat, ko comme nous mu avec les dernières commodités. mais il bo bor bi mu yore publics euh, di euh, établissement public privé yi taxoon sax ñu yi chaque fois des problèmes di am loolu tamit ci bilan bi la bokk de doo ko wax. xam nga bi mu ñëwee dafa fekk étudiants yu baree très, bari bu ci jappul won ken du len orienter ci mbedd mi lañu mujj il n'était pas obligé parce que l'enseignement supérieur aujourd'hui dans le monde est privé pratiquement mom mo jël ci mbaxam ak ci vision am mu jël ñi ñu orienté wul ñi amul chance ñu orienté len ci première liste ni la de sur la deuxième liste ni à la troisième liste mu jël len duggal len ci école privée yi ba paré état di len fayal loolu il n'était pas obligé de le faire. mais fu mu mujj tey génn nañ ci parce que xam nañ ne nguur gi ko genn nañ ci tay ji loolu amatul euh, ngor gi ñepp public leen di ndax mi ngi yorel gaay yi bor mënatu ko mu melni dogal bo xam te xëy politique képp mo taxone ñu di koy def tay ji gis nañ ne jafé euh, jafe leen di jural. nekkul ne mënatu ko xam nga lepp lo gis bo commencé ben mbir dafa am lo ci sentu at yi ñew ñu wacc li ñi def. Nous réguler affaire bi tout le nekkaat normal c'est-à-dire que aujourd'hui bu fekkente ne orienté étudiants dans le dans le privé au bout de deux ans au bout de trois ans maintenant université publique yi danañ absorber tous les étudiants tous les nouveaux bacheliers moom moo nekk nii parce que nag à chaque fois nous jël ay étudiants ba pare di orienter dans le privé dafa defoon le juste pour may pour ñu may effectivement mu def ay infrastructures yu doy dans les universités publiques enseignement bi mu changer ko à partir de ce moment je pense que étudiants yi ñi nouveau bachelier suñu suñu rak yi am bac ñu mën leen absorber au niveau des universités. légui ya ngi wax Macky Sall def na fi lu fi kenn deful deug le de bu dee ci démocratie ndax yi muy def ni ci nguuram euh, xeyna

Sénégal yëpp dem nañ fa te dara fekku leen ca lu tax rek euh, ngeen jël Guy Marius Sagna bëgg ko bëgg ko sonal noonu. Euh, Guy Marius Sagna je pense que kenn sonalu ko moom moo sonal boppam boo xoolee euh, Guy Marius Sagna man dama jàpp ne kii nag yëpp ñibbiseegu na quoi lu tax ma wax ko nit koo xam ne day yeewu fajar dem ci giri pale rek téye ko mais buñ ko bàyyoon mu diggu ci ci biir fu mu jëm. ak ah, giseeg waa ji. a no ah loolu man jàpp ma ne. ànd naa xelam jàpp ma ne nit koo xam ne véritablement nag nagam yëpp ñibbisee nañ <laughs> ñibbi ñibbi ñibbisi nañ. Ah, parce que nit nit koo nit nit koo xamante ne véritablement boo xoolee. Guy Marius Sagna euh, ñun dafa am loo xam ne moo ñu tënk muy la république. république boobu noonu dafa am ay ay charte loolu bu leen arrangé rek ngeen koy wax. boo boo jógee. mari Guy mari Sagna di def nii ba ngeen nekkee ci opposition bi def ngeen ko lan moo fi changé. bi ma seetaanee film bi dafa mel ne dafa mel ne eh, lu amul laay seetaan quoi damay damay gént ñëw di bëre ak garde rouge yi mais loolu ñëpp xam nañ ñëpp ñëpp dañ koy ñaawlu parce que effectivement ci république lañ nekk. Lui, il se considère comme un révolutionnaire, mais c'est un petit révolutionnaire. mais mais mais véritablement étroit. mais il euh, y a un révolutionnaire Père, il APR yi fi jamono ji tamit parce que fii nga il euh, place bi nga toog jiite ndaw yi euh, APR ci COJER googu Thérèse Faye togon na ak ñeneen ak ñeneen gone yu xeexal Macky Sall mais yeen yeen ñi tok jamono ji fa melni dafa am lu ngeen ragal wala ñemewu leen euh, xeex bi seen parti bi mom fuñ tolni fuñ dem ci débat sonu fa actualité bu amé ngeen melni ñuy ñuy neubatu lu tax lolu da ngeen ñu dul wo rek heure boo heure bo leen ñu woyé ñu tew bu ngeen ñu wowul nak peut-être duñ ko mëna yek té benen affaire bi aussi les gens disent que né benn bok yakar ak APR dañu am problème communication du problème communication de gis nga bo nekkee ci liguey Si la wax bo nekké ci lu sérieux wax ji koy encore une fois wax mënoko bolé ak li président de la république bi sénégalais yi voix effectivement dañ ko ça n'a rien à voir avec la communication parce que dafa liggéeyal sénégalais monde bi nak fofu la toll nekkutul ne dañu wara nekk di mbaji di wax bon nañ ci paradigme aujourd'hui dañuy wax peu et bien tuuti la ñuy wax mu am njariñ mu amal également njariñ sénégalais yëpp ñu ne ci liggéey bi je pense que l'olmo moo gën nekk ci télé yi ainsi di di di répéter ce que les gens faisaient auparavant. Hum, mbirum Guy Marius Sagna sànq yaa ngi wax né euh, ndax nagam yëpp ñëw ne ndax limu def ci palais euh, dem fofu di manifester mais l'olu du fi guléet gis nañ ay ndaw APR Guédiawaye 2017 euh, bi ñu génné Aliou Sall ci yi ñu ñëw taxaw manifester ay ndaw yu maire mouvement étudiant républicain tam Macky Sall di leen recevoir ñen ñi duggal ñu ñuy manifester bay def nak su du noonu dara fekk leen ci. ba am ñu ci gañu ba am ñu ci gaañu est-ce que du ne am ndey kuma amul nday moom moo am ci doxalin euh, man li ngeen di wax ni j'étais j'étais là-bas au niveau du palais j'étais présent j'étais témoin mais dara fekk na leen ci parce que république lañ nekk. ñu leen ci fekk yóbbu na leen kaso. yóbbu na leen kaso ba ñu tëj leen ba ñu condamné leen. ah bon bu baax je suis témoin des faits donc loolu noonu dafa nekk ci ay fu mu mënti di jóge que ça soit parti au pouvoir ou que ça soit opposition o dafa am lo xamné rafetul ñu yew un bon jour ñi ñuy won ay image gars yi di béré ay garde rouge mais lolu véritablement lolu day désacraliser suñu suñuy institution lolu baxul ci gis et puis lolu bu fekkente ne ñoo koy sétane bu yàggee ci fenen day jël ay proportions yo xamné ce sera des proportions justement inquiétantes léegi euh, euh, li nga xam ni moom la ñuy laam-laame fan yi itam naan Macky Sall euh, dafa mel ni day bëgg a dindi mairie bu Ndakaaru yooyu loolu dëgg laam man de déggu ko wax dëgg yàlla déggu ko sañ na ko te jàpp naa ne président de la république du fi def loo xamante ne day lor sénégalais yi lor ñi dëkk Dakar lor également les collectivités locales parce bi mu ñëwee dafa djublu directement ci équité équité territoriale équité territoriale c'est l'acte 3 de la décentralisation. manam dindou meeru Dakar bobu yow and nga ci. l'acte 3 de la décentralisation moy encore une fois jox geud collectivité locale yi jox respect ñi dëkk ci collectivité locale yi. and nga ci ando ci. président de la république jàpp naa du fi def lo xamantene day lor dakar ñi dëkk Dakar. day lor également sénégalais yi. jërëjëf Moussa Sow euh, njiital COJER euh, mbootaay gi ëmb goney APR parti Macky Sall jaajëfal ak Ndiogou